Cheikh Secka. dëgg pire. yow yow xam nga artiste nga dangay way. Mm-hmm. te man moom duma artiste duma waykat déjà man jëluma way def ko sama métier man maa ngi si leneen maa ngi si maa ngi si leneen maa ngi liggéey maa ngi si yeneen mais yow dangaa jël way def ko sa métier mu nekk sa métier boo xëyoon xëy ne hmm, muuma dootoo dootoo dootoo yor dara dootoo xaj fenn. loolu am na. waa léegi kon yow Cheikh Seck yow lan moo tax booy classe doo dem nga classé waykat yi lan moo tax rek nga yow looy wax rek taf ci dugal ma ci wax dëgg yàlla. non man maa ne xaar ma classe Ndiaye. xam nga boobu léegi amagoo ku la ku la teg pression moo tax ma ne xaaral tey moom naa la teg pression sonal la tuuti. xam nga yow uh, waykat waykat waykat bu ndaw nga. waaw. waaye Secka mi jur Secka. mënuma mënuma mënuma jaxase wala mu teg ma pression xam nga xam <coughs> man damay déglu ba pare damay wax ba fa jote loolu mooy problème <coughs> damay déglu damay jote yow xam nga ni man maa la dàq tontu maa la dàq wax maa la maa la maa la ëpp ay rab maa la maa la gën a dégg gën laa xam fa may wax te man su may wax ci sama. <coughs> ci sama biir wax ci laa lay jaxasee dootoo wax. te wax ji fa may jógee dama koo xam bu ma koy teg fa ma koy teg fa may daanee la man dama koo xam communication dama koo man te yow da nga naan ratatatatatatat mel na kale kale deux yow macha allah man ngaa woy lool waaye da ngaa noppoot sa gémmiñ gi ngay ubbi rek mel comme nafa gi yaamati fay mbay yaamati faal mbay di takk ubbi sa gémmiñ gi sa gémmiñ gi wax nga ba mu toll ci sa côté nopp yi boo baytu na sa mbagg ma sa gémmiñ gi bii ak bii dinañ wëndeelu ba fii ñu tolloo parce que da ngay wax a wax a wax te xoolal wax la dara looy gën a mën a wax sa gémmiñ gi di gën a ubbeeku ngay gën a mën a wax sa gémmiñ gi di gën a ubbeeku. barke ba non man léegi li may la ma. dafa mel daa am lu may dafa am lay wax loo. wóor na yàlla léegi nee na si da nga loo am na ko ma message léegi whatsapp xaaral ma tegal loo ma lu yow loo way wax nga ko. ngay def ngal ngale nga ngal ngale ngal ngale ngal ngale ngal ngale ba kenn xamul looy nuru noppaloo sa bopp nga nopp sa way wi neex na waaye di nga ko wax ba mu yàqu dal noppi artiste day noppi SBK gain noppi naa noppi naa artiste day noppi del noppi dégg yow amoo amoo amoo caaxaan da ngaa baax nit ku baax nga waaye da nga du noppi daal loolay sa problème da ngay mbeb mbeb rek yow comme taxi mbeb mbeb mbeb mel yor xalaan del noppi nag ah del noppi noppi daal dégg noppi naa. bu ma déggati si réseaux sociaux yi ngay wax waxal waaw. waaw. baax la jërëjëf sëñ Cheikh Seka kontaan naa merci. incha allah. mais xoolal ko so. Hmm, yow may ma sama jàmm.